mbokk internet yi ñu seetaan ci Refane TV Baol Médias ñu leen nooy leen siyaar ñu ngi fee tey nag commune de Refane ñu def benn comité nag di xeex jàngoro bi nga xam ne lembe na àdduna ba ci fii Sénégal bi mu jubaat seen ak ci dëkk bi waa Refane def lu am solo ut benn commune benn comité boo xamante ni dañuy xeex jàngoro bi donte egg seegu fi sax ñu fagga ko balaa egg si ñu ngi taxawak ak Ibrahima Yad ñëw fii nii tey ci commune bi di joxe ci kaddu maire ñu ñu ngi lay fay di wax euh, asalaamaaleykum mbooloo mi di wax euh, ñu ngi leen di jaajëfal ñëpp di leen nuyu di leen sant di leen gërëm euh, ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne tey taxaw ngeen ngir jarale information yi nga xam ne lépp mu ngi jëm ci xeexu Covid 2019 bi di wax rek ci kaddu maire en tant que secrétaire municipal comme ni ko ñëpp defe rek sànq ci biti maire it am ci cër bu rëy ndaxte yàlla dafa dogal mu jaboote ñëpp kon nag euh, mënul des gannaaw ci mbir mi daf cee war a jiitu mujj ci kon loolu moo waral tey euh, ginnaaw bi nga xamante ne am na couche ñu fi jaar ba jox jote seen participation ci Covid bi. ranga au nom de toute la commune pour jébbal ko comité bi nga xam ne euh, ibrahima Ndiaye moo moo ko jiite tey jii mu nekk ay produits ay détergents muy nekk eau de javel madar ak ay savon nga xam ne la mu une valeur de 780 francs donc loolu euh, ay produits la dañ koy jël Covid bi ah, niñ koy xeexee nag ñëpp wax nañ ko ministre wax na ko yi ñu ngi wax bi nañ aussi fab loxo def ko ci nga comme ni ko docteur waxee fi kérok rek du raxasu bi rek doyna dedet suñu paré dañu wara duggal dugal loxo ko ci au javelisée tay microbe yi loolu aussi dafa am importance donc raxasu bi baxna waye waaye nañuy xel aussi def loolu mo waral tay ah, ñu andi ah, bagage yi ah, ci touru maire ci touru commune Refane gep ngir jébbal ko comité de lutte contre Covid 2019 bi ah yemul foofu parce que booy xool tey boo demee Dakar am na ci benn immeuble boo xam ne dañ fa nekk euh, quarantaine ay ay ay doomu aadama te njabootu Refane aussi bokk ca ñooñu tamit euh, yàlla dogal maire ba Bamba Fall waroon na toppatoo yoro seen lekk ak seen naan ndax bu ñu mettre en quarantaine dootoo am ité dootoo génn donc loolu taxoon na aussi euh, suñu maire yëkkati valeur bu 200000 francs jàppale ko Bamba Fall ngir ñooñu nga xam ne moo leen di saytu ca Médina ay doomi Refane bokk ca loolu aussi euh, muy geste boo xam ne am na solo trop euh, ñi ñu ko defal sant nañu seeni waajur sant nañu wutal nañu leen ay crédit sax téléphone ñu de trente cinq mille francs ngir ñu mën di jokkoo ak seeni mbokk nga xam ne kon mënuñoo génn donc ñu dañ leen ko dugalal noonu rek eh, ci seeni téléphone ñu mën di jokkoo ak njaboot gi loolu aussi vraiment ñu di ko rafetlu bu baax a baax ah bu weesoo loolu tamit ah, prévoir nañu une valeur de 400 000 francs yoo xam ne ci ci comité départemental bi euh, préfet Bambey lañ ko war a jébal xam naa bu soobee yàlla incha allah lundi au plus tard maire dina fa dem euh, pour jébal ko euh, enveloppe boobu ndaxte xeex bi moom fépp la te dañoo bokk ci département bi te maire yëpp préfet sollicité woon kenn ku nekk def sa participation moo waral maire prévoir na quatre cent francs yoo xamante ni dana ko jébal waa comité boobu départemental bi ci loxol préfet Bambey kon euh, euh, li ci mel ni aussi gendarmerie nga xam ne daanaka du jóg fii di def ay patrouille euh, ñoom tamit bàyyiwuñu leen gannaaw maire yebe na leen xel ci wàllu carburant bi ngir ñu mën di def seen i déplacement di ñëw fii di saytu problème yi nga xam ne dafay am surtout lu mel ni football yi marché yi moom yooyu moom toujours ñoom ñoo ngi si

Ah, suñu mbokk yi Ndorong Malick yi ah, bañ xamee ne jën nañu fa quarante bouteilles ñoom itamit ñu yëkkati 30 bouteilles participer ko ci xeex bi donc produit ñoom ñoo ko defar ci seen village ak ak ndimbalal euh, ki ñuy wax Marie mu nekk benn volontaire bu Corps Africa mu doon jàppale mu ñu affecté woon ko foofu mu logé woon Ndorong yàlla dogal na léegi bi Covid bi amee dañoo day retiré seen éléments yëpp ñu delluwaat seen njaboot. waaye moom itam au passage ñu sant ko gërëm ko jàppale na jigéen ñi Ndorong Malick ba ñu mën di defar eau de javel muy bouteille bii nga xam ne moom laa yore ñu def ci seen mark seen ninéa ak seen adresse yëpp donc ku soxla euh, aussi mën na ko am foofu kon jigéen ñi Ndorong Malick ñoom it gàcce ngalaama desuñu gannaaw ci xeex bi di sant di gërëm aussi euh, jigéen ñi pay si njaan ni ko euh, ñee defee ñoom tamit nga xam ne dañuy dajale par ngoon di bale ñoom tamit am na geste bu ñu def yaakaar naa Mbaye Ndour jotoon na ci mais ak suñu soxna yi nga xam ne suñu yaay yi nga xam ne ñoo nekk fii tamit di defar cere yi euh, mu gp yi ñoom tamit andi nañ fi ñaari carton ah euh, nee nañ ko participer ci liggéey bi carton Madar ak carton eau de javel yaakaar naa commité bi ñoom it jot nañ ci loolu kon daal pour wane ni rek euh, xeex bi daal ñëpp la itteel ñëpp ak marché bi également délégué marché bi muy Baye Mbacke Ngom ànd ak équipe am ñoom ñoo njëkk réagir sax ginnaaw oustaz Abdou Faye ñoom ñoo njëkk réagir def seen geste bu rafet kon daal épargne wu ñu kenn compte orange money yaa ngi nga xam ne aussi xëy na Ibra daf ko fàtte woon compte orange money yi ñu ci ñaa ngi dugal kon fu waaye tollu rek mën na ci compte bi xam naa xëy na Ibra mën na ko rappeler balaa kii compte orange money bi bu ko defee képp koo am ne bëgg nga ci participer rek mën nga dugal ci compte orange money sa participation di nekk si ci ci ci ci ci maire bi ci ci comité bi. donc ñuy gërëm aussi si ñaan jëm si kanam ñoom it joxe nañu sànq donc ñoo ñëpp maire dégg na leen duñu ñu fàtte aussi docteur Tine geste bi mu def moom itam vraiment mu ngi bokk ci comité bi waaye aussi mu ngi ci dugal loxoom bu baax a baax donc vraiment yombal na bi opposition bi jaar fi sànq euh, ci ay 17 heures ñoom it joxe seen participation kon daal Refane gépp ñoo booloo tey ànd bokk ndey ak baay ngir xeex Covid 2019 bi kon ñu ñaan yàlla jëlal ñu ko fii ba ñu mën a dellu si waat activités yi ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.